ànd ak El Hadj Ahmed Aidara njaw laa ngi wéy di desu xamin ci coowal Cheikh Béthio ga tribune yéene kay ne ngir ñu génnee koon Cheikh Béthio ca kaso be ah cantaku ni day ba léegi ni le fa ñu nekkoon duguñ fa app daal la ñu jokkoon nguur gi di wàllum ultimatum Seydou Gueye bu APR ne nguur kenn mënu ko jox ab ab waaw secrétaire général bu gouvernement bi ne am nga droit manifester waaw constitution bi moo ko santaane waaye kenn amul droit nag salfaañe kon karangeeg réew bii di trouble trouble à l'ordre public waaw cantakun yi ci tribune yéene kaay ne fa ñu nekkoon juguñu fa ñun daal benn bëgg-bëgg kese la ñu am mooy njiital cantakun yii di Cheikh Béthio ñu génnee ko kon ci kaso bi ci nii ak ci nee waaw te danañu sàkku tamit ci di ndigal amal kon ab doxum ñaxtu te gis nga nag maanaam doxum ñaxtu goo ñu joxee ndigal ak bu ñu amal ah waaw secrétaire général gouvernement bi ci la pays au quotidien ne man daal nekkuma avocat waaye daal la ma mën a xam mooy képp koo xam ne kon caabi féete na la ginnaaw nga feebar waaw bàyyib na gandiku di liberté provisoire nekkul ne mooy dikk ci xel yi kon ci tàng-tàng ba déedéet parce que pavillon spécial kon ñi ngi fi ku feebar ci kasoy foofee lañ lay yóbbu kon ci l'hôpital yi maanaam ci kaso bi la ba léegi ni le yëng waaye Macky Sall ja yamu ca ndaxte ah, kon liberté provisoire di bàyyib na ko nii di Cheikh Béthio Thioune ah waaw parce que ca cun bokk na ca rey nit waaye suul nit yi te jotoo ca kon génnum ndigal di autorisation administrative waaye Macky Sall ja yamu ca moom Seydou Gueye nee na ñun daal dañuy liggéey ngir delloo nag nguur place sam kàttanal ko waaye itam nit ñi respecté loi di wàll wàllub yoon ministre de la justice Aminata Touré ci laas ne Sénégal kii ñëpp a yem waaw ay yax bu rëy fii laa juddoo juddoo feek tolloole wu ñoot koy nit ku ndaw la ak yooyee loolee kon amu fi ah Aminata Touré ne waaw ministre de la justice ne la ñu maanaam ay mbirum par parloo kon mënu caa am kumba am ndey kumba amul ndey Serigne Saliou Thioune ci le populaire ne ah kay ñun daal fi nekk nii xoolal la ñuy woo nit ñi ak ñi nga xam ne dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu doomu aadama mooy ñu dikk kon fekk suñu ci suñuy kaddu naqarlu bu baax a baax xaxar gi nga xam ne kon moom lañ jëmale ci ku tedd kii di Cheikh Béthio Thioune sonal ko asarne kon ci kawam te kilifa yi ñooy def waxu Cheikh Béthio Thioune ba yemu ca moom sëñ Saliou Gueule Tapée nee na bu dee daal ndaw si la di Aminata Touré dafa am lu mu wax rek ah ne wax ak ñi nga xam ne dañoo yor ay ngànnaay mel ni ñu nekk ci film Kaboy di rey nit taxaw publiquement nangu ne ñoo rey ba pare kon ñu yëkkati nag ay ndomba tànk di ay poste de responsabilité daal di leen koy jox lii luy ndeyam xam maanaam suñu justice bi ci boppa moo am kumba am day kumba amul ndey du samay kàddu de Serigne Saliou Thioune daaw Cheikh Béthio mooy wax Gueule Tapée ne Aminata Touré mii mais kii dañoo yaf sax Aminata Touré samok donu dañoo yaf dañu kokkali te fi mu nekk nii bakkanu seex bi ci boppam kon la ñuy foyee te liy raam ci ñag wala jëm bu fa amee kër fa gaaw a génn libération yéene kay ne mbirum seex Béthio Thioune moomee ah, indi na sax am coow lu day ci kaw nguur ga xanaa xamoo leen ne jour bu njëkk bi ñuy waxee Macky Sall ne ko seex Béthio jëlee nañ ko ca Thiès ga di ko indi ci Ndakaaru dañuy lan quoi ginnaaw ga la ko gars jàpp kon di ko mocc te la ca gën a doy waar mooy kilifay ku nekk ngay waxee sa côté ministre de la justice Aminata Touré ma ngay waxee fële directeur administration pénitentiaire ma ngay waxee fële régisseur rëbës ma ngay waxee fële Cheikh Béthio Thioune ñu teg ko loxo lig ni ko laay teg nañu ko loxo le populaire ne ñaari douanier déglu nañ leen tribune yéene kaay ne le promoteur du continent daanu na le quotidien ne ma nga daanoo ca Passy gendarmerie ko teg loxo laas ne lig Nicolas kay daanu na la ñu koy toppee nag mooy seetal xaalis boo xam ne kon bu salte la waaye it wàllum drogue trafic international de drogue avocat am di maître Boubacar Cissé ci yéene kaay ma jambal jàngi ne déedéet du mbirum drogue de ah coowal topp ci poste jàmbur kon di ronki xaalis ba la ñu koy toppee c'est une histoire de tentative d'extorsion de fonds ah waaw libération yéene kaay ne coowal drogue ba ca lamantin bi ci yëngu na moo tulli tubaab maa la wax li le benn ci liggéeykatu lamantin yoo jaye moom la Luc Nicolaï kon utilisé moo teg drogue ba ca kër ga de waa ji kon mujj na koo nangu benn ci ay douanier teg nañu ko loxo le pays au quotidien ne Luc Nicolaï yóbbu nañu ko ardo ba fay day ba kenn ma nga ca xottu gerte mbaa du xaalis bi le moo feesoon làmb ja lañ doon fay mbëri nag boo sàgganee kon dana wàcc booy kay re ci la quotidien yéeni kay ne tuumay bu dee dëgg la dana nekk luy mitt lool sud quotidien ne xaalis bu salte lañ koy tuumaal li teg nañu ko loxo laas ne ëllëgam day dana nu ko xam tey ëllëgu Moussa Diop ah doy na waar libération yéen kay ne Moussa Diop day mooy président communauté rurale bu Ronkh ca Ndar géej ah mi kaa jàlloo ko Samba Ka Ahmed Saloum Ka ak Alaaji Ka lu tax ndax gars daal nee nañu président communauté rurale bu Ronkh koo gee di Moussa Diop ca suuf ya daal la nekk di ko caxat-caxatee kon ak di ca ndaataatalax di ko gundaa ndaat ak di ca noos nguur gi moom noosatuñu tribune yéen kay xuloo am na ca kaw de que diggante Macky Sall ak Aline Badara Cissé sëy ba du tas kat yenn yoo xam ne Alioune Badara Cissé daf koy def mbir ma neexu ko ah ABC day tukki te du tàggu kon président Macky Sall waxoon na ne balaa kenn signeeti dara na ko yëg ba pare nangu ko waaye Alioune Badara Cissé day def safaan wa dem naa ca làmb jë Balla Gaye numéro 2 ci suñu làmb ne man dépassé naa Eumeu Sène ah waaye nag bu promoteur yi tamit bëgg nañ sama diggante ak moom nañ teg ci taabal ji lu ko jar doomu duubalees gi ne man maay tànn léegi ñi may bëreel eh waay Samba Balla Gaye 2 ne parce que ragaluma kenn te man nag damaa namul dara man Balla Gaye 2 namuma ah te ñàkkuma dara it <laughs> ca yàlla euh, chumère yow lan nga ñàkk ak lan nga namm xaalis tabaski bi day yaa ko teree neex